جاورت بالفرقان borom fan nu gudd lol te man ànd ak ci la lay ñepp xam ci sag dëggu sag talibé ak bëgg cheikhul khadim du day wat ci bëgg yalla ak bëgg rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nga doon sa waajur wu tedd wa sëriñ abdul khadir ci jikko yi sel ci kër kenn ci njabot gi muy cheikh mansour diouf mi mom serigne fallou moom Serigne Souhaïbou soxna si Mbacke yëgsil soxna maam Faati mbake moom Serigne Fallou moom Serigne Souhaïbou di soxna ci cheikh bi mbake Balla kooku rakkama doomu sëñ Abibou moom sëñ Fallou sëñ Ahmadou mooy moo moo ko yor moom sëñ Fallou day xadi soxna maa jigéen Diouf ñoom ñëpp ay rakkam lañu ak soxna Sémou ak Adja Sarr Ah, sunu yaay ji itam moom mooy waajur wu jigéen ci cheikh bi nekkoon fi ak waajuram bu góor kon Sarr yàlla na yàgg sunu borom dole laa kattanal soxna mam Faati Mbàkke mi it loolu lañ koy ñaanal ndax doomi mu nekk ak moom ci anam yu rafet te sell te nekk ci keppaaru waaju baax sakku ngërëmam rek mooy tax nga am lu baax te bi mu fi dikkee ak tey nekk ak sëriñ bi nun ñi di ay dongo jikko ju sell rek lañ gis ci moom akuk talibé yàlla na yàgg mbake ko baa sax nga gën nu koo xam muy taalibe gi ak yar bi ak teggin yi ak bëgg lu baax jëfinu waa Touba di wax waxinu waa Touba di dox doxinu waa Touba loolu mooy ak taalibe rek moom la dund feefa Touba ñii toog ñenn ñi ay mbokkam lañ ci wàllu deret ñenn ñi sax ay waajuram lañ ci moom ci liggéey bi kii ñu ngi koy wax Baye si Sylla Sarr moom mooy vice président Freyoof ci ñi nga xam ne ci wàllu sar moom nag mooy président Fra Yoff maanaam ñi wàllu yor yor dëkk bi di ko saytu ci tëralin wi ak doxin wi moom mii mooy moom it ci ca APECSY imaam la fa di doxal dëkk bi waaye ànd kilifa yi ŋànk dëkk bi di ko saytu ak di ko defar kii mooy sëriñ di Cheikh Mansour Diouf nga xam ni jataay yu mel nii du tey lan ko dala am ak yow waaye muy jataay yu sell di jataayu jataayu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 ñu ngi lay dalal sa biir kër fi nga ñëw nii tey mooy Yoofu géej ki nga fi fekk si nag léppam yoof la léppam Tuubaa la léppam Sëriñ Tuubaa la boo gisee nga ñëw fekk fii ñu toog nii du tey lañ fi mas a toog ak moom te lii tax ñu toog ak moom yépp naam deret a nga ci waaye diine ndax bi yàlla dogalee sëriñ saaliw yebal ko fii ci fii ay baayam dëkk mu ñëw fi wara a yoof gii ngor wakaam kambéréen ci wàllu tarixatul muridiya loolu la ñëwee oo ay mbokkam ay mbokkam yëpp ñëw fekk si ko képp koo xamee ne kii fii nekk nga yoof ngay mag ngay ndaw ngay jigéen ñëw nga ànd moom li ñu ànd moom nag bu ñu gisoon si moom leneen lu uuteeg li ko sëriñ Touba sante ñu bàyyi ko fi dem suñu yoon mag ñi ne woon nañ fi dañ koy wax jamono bu ne ne yow de bu la fi mag ñi fekkoon ñi nga xamee ne ñoo eh, nekkoon fii gëm sëriñ Bamba kon danañu kontaan lool waaye bi nga ñëwee fekkoo leen fi tamit mel na ni ñoom bég nañu parce que Touba rek moo leen ñoroon kon boo ñëwee diggante Yoof ba Ngor ba Wakaam ba Kambéreen loola ñu tekk sa loxo nga oote ne ñëw leen ñu bokk da nga ci di sig taalube loolu la ñu wax ñu ñëw ànd ak moom ci loolu loola nag moom mu wane ci ay firnde yu baree baree bari am na lu ci sëriñ Moustapha wax léegi am na ñoo xamee ne ñii xamuñu woon dara mënuñu woon liif mënuñu woon baax waaye fi mu ne nii kat téere xasaayit bu mu mën a doon buñ ko tiimee fii man ko jàngal seen bopp ànd tamit di ko yëkkti loolu li koy may nit mooy jàng kon daara mu ngi fi daara joo xamee ne ji ay jigéen ak ay góor waaye tamit ànd ci loolu di mokkal alquran cant gi nga xamee ne moom la yàlla dogal ñu di ko jublisee le vingt huit le vingt neuf le trente bii incha allah ci weer wii mënuñu xam boobaak léegi ñaati da nga ci la ko def bañ ko ko sante ba bés na ki tey moo ànd sëriñ Serigne Fallou bu di ko doxal wan ñëpp da nga ci kan mooy sëriñ ay Souhaïbou ba ñëpp xam ko ànd moom ci loolu dañ ko wax ne sëriñ Fallou Souhaïbou day ku ne am na fii ci yoof ñëw fi waaye moom moo mës a tànkam ñëw ba ci jumaa ji fële nga xamee ne yoof gépp fa la ñuy daje mu ñëw seet sa yoof moom nag mu xamal ñu ne mooy sëriñam moom la jox baatam sëñ Fallou tamit képp koo xamee ne kii am naag sëñ Mansour Cheikh Mansour mii da nga ci jàmm ak teraanga mu xamanteeg yow di jëflanteeg yow teraanga fii ba Touba nag ku mu mës a gis fii rek jàpp na la te bu jàppee du bàyyi Cheikh Mansour nag yàlla defal ko sutura lool lool lool ndax diine moom nanga am ay ndaw yoo am pas-pas. te ñu am pas-pas ñu ngi fi ko gis mo and ak mom rek borom pas-pas la bok na ci ñooñu nak imamu dëkk bi gis nga tant gi nga xamé ne mom lay def am ci bes bo xamé ne bi spécial ba mu ko tambalé bu bés ni ki tay kamir yu ne nangam ci ay lim danañu ko def waye wa dëkk bi nag dana leen wax ne ah yeen seen bos mu ngi non yeen ay xam nan ngeen kay doxale waaye bu àggee tamit ñu ne ah ñu ngi war a jeexal da ci kaamir bi xatmu bi bu boobaa imaamu dëkk bi la koy jox kon ni mu nekkee ak ñoom nekk la woo xamee bu rafet la beneen bi mooy Cheikh Mansour mi nitu jàmm la jàmm rek lay oote jàmm ñaar ñu dëngoo ñu mën a doon mu ngay fexe kamtalaayu kàttanam nu mu manee ba ñu nekk benn ndegag la yàlla santaane woon waxta waatasimu bi xablillahi an wala tafarraqu moom loolu day mu ngi koy jëfe de mu ngi say taxaw loolu yematul fii mu ngi génn moom bitim réew ba bitim réew bu muy génneel ñëw fii ci senegal dakkal ko fi ay garaat ndegag rek moom jàmm ji nga xamee ne moo nekk ci moom te moom la bëggal ñëpp te jàmm nag moo jig ñépp kon suba ngoon guddeeg bëccëg moom lay dox ñun day xamal nañ ko loolu fuñ ko fekk tamit xam nañ ne si jàmm ne fuñ ko fekk tamit xam nañ ne lépp loo xamee am na ko jariñ na ko yoof jariñ na ko fi nga xamee ne moom lañ ko sante ne dégg nga ci fii lañ la samp ci wàllu murit pour indi ci firnde firnde rek ci biir koor gi dafa am benn conférence bu ñu doon def fii ñeeño yi ñoo ko doon def man ba ma fa ñëwee falaa ko fekk moom boo ko fekkee mu ne da ngay jël kàddu ma ne ko déet ñun ñaar mënu ñu jëlandoo kàddu yow sa kàddu doy na ma sëkk mu ne ma déet ni ñu yàlla boolee yow daal foog nga jël kàddu fii kon boo paree man ma tëj noonu lañ mujj a def lettre bii dama ko fàtte dañ gën jàkk ji rek léegi biñ jullee saat ñëw fii mais dama ko fa bëggoon andi ba nga teg sa bët ki nga xamee ne moom la yàlla dogal mu nekk fii tey di sëriñ Touba sëñ Mountakha moo bind lettre wax ne la nga xamee ne sëriñ Saliou moom la ko defaloon ci gox bi mu ngi koy féddaliwaat newul loo xamee booba la kay jox waaye nag dafa bind bu bees def si tampon signé si naka teel man bi ma ñëwee man la ko jox ci oto bi la ko génne jox ma ma wax mbooloo mi yëpp génne ko. talal ko ba won len ne li moy li nga xamee ne la gor gi bind kon de kur saxalat pas-pasam ba nga xamee ne moom la Serigne salu defon ci mom gis nga ki ñun man ñu ko fay mo ñu yekki fi ci école bi ñu jànge école Cheikh El malik si ñi ëpp fi imam bo fi gis ci jàkk bu mu mëna a ñi ci ëpp fofu lañu génné génne yeneen gox yi sax fofu lañu génné ci école boobu lañu génné ñooñu nag dafa am jamono ñu wax ne école bi war nañ fi tabax war nañu nangam ak nangam moom mii moo mobiliser yoof gépp ay kaar moo fay leb ki oto yi nag yu ndaw yi xamuñu ñaata la toll ci waa yoof ñu ànd dem Touba ci sëriñ Saliou keroog bi ñu egsee Serigne Saliou dafa wax ne boobu ba léegi maa ngi leen di séentu naa waa yoof ñi ndax egsee guñu waaye xamoon naa ne bu ngeen egsee rek moom sama xel dal ñu dem nuyoo mu ne dem leen toog nag ngeen dallu tuuti waaye xam ngeen tra ngay tuubaa de xam ngeen ko de dañ ma oo bu mu ñëw ñu ne ma saal bii yëpp xoolal li fi nekk yëpp pour yéen la waaw ci ay teraanga d'accord waaye lépp ay teraanga seeni jamono mu dem mu sonn nekk loolu dafa war a continuer di am ñuy jóge fii da nga ci dem Touba parce que moo ñu tàmmal loolu kon nag moom mii jëf na lu rëy lañ ko sante woon pour mu def ko fii ci yoof loolu def na ko fii ci yoof jógaat tamit ñu ànd dem ba Touba lépp lu ndaw la tamit waaye li nga xamee ne moom la bëgg ci taalube moom la bëgg danga ci def ko Sëriñ Touba yàlla na ko fa yàlla àggale te loola tamit mooy li mu la jaarale fii ba nga ñëw tey ganale ko kon nag waxuñu ne ganam nga waaye suñu gan nga ñun ñun waa Yoff ñun waa Ngor ñun waa Wokam ñun waa Cambérène xam nga mbir mi bu fekkoon ne du yow. dox bi jëmale ko ci sëriñ bi ndax sëñ bi njëkk day sunub sëriñ te loolu daa doy lépp ndax ay murit lañu. te it suñ Tuubaa la jóge kon mooy sunub sëriñ waaye dafay koo xam ni man dama cee am tawféex ndax niñ jaxasoowee gannaaw bu ko sëriñ Abdou Khadir meññee ku ne xam ko nam meloon muy sëriñ Abdou Khadir ak la way juróom waxoon ca moom koo xam ne bi mu gënee àddina bi sëriñ bi di joxew turam kim ko jox ngir mu yóbbu ko jox ko tur wa muy maamaatam moom mii di borom Daarul Muxti dafa wax maam Thierno ne ko fii ba keroog ngay yegg kooram bu jéggal nañ ko ndax barke kii feeñ jamono tey muy sëriñ Abdul Xaadir moom mii maam Thierno mooy maamam ndax sëriñ Abdul Khoudous maam Thierno Birahima ko jur mu nekkoonub xalifaam fii ci Daaru Mooti moo jur waajuru mu jigéen moom mii sëriñ Abdul Xaadir di waajuram kon muy sutub sëriñ Tuubaa Thierno kon loola rek macha allahu doy na. kon kookee nga xam ne mooy sëriñ Abdul Xaadir bu kiimaan googi feeñee ci gan ak addunaam mu wëlbatiku ñu def ko imaamu murit yépp nga xam ne nee nañu kum jiite doo lakk moo tax ay mbokkam gannaaw moom dong lañ ko waxaloon ci kër ga ñu far ko def loola muy jiite ñëpp far ndax nee loolu murit looloo ci neex nee na da ngay gis kër rek muy këru adduna rek nit am fab cër ñu koy xeex bu dee doomu bàyyi wala doomi ndey wala mbokk loolu nag sëñ Tuubaa yàlla da ko cee dimbali doom ji mu jur la ñëpp xam ne moom la la féetale ñom ñep dañ ci and ak yow rek top ci motax jabotu seigne touba gep andon ndax seigne Abdu latou ko fete ak mak ci saayir doonoon kilifaam ci saayir waye mom la wulbeuti ko ne yaay sunu imam ndax yene ñep jam rek gannaaw kum jiite dolak motax mam Abdul Aziz ci mbaxam nga daa xëy bés rekk dem Touba ne ko kaay jiite ma ma liqaamal la aw nee na loolu xam ngeen dafa neex kooku mooy wayjur kii toog mu donn ko bu baax macha allah nee na moog sëñ Abdou Khoudous moom mii dañoo nduroo ay jikko ak i melo maanaam sëñ Abdou Khoudous daal yàlla rek istiqaama rek. ak sëñ Touba rek nee na sëñ Fallou Chouaï bu Masama wax ni sëñ Abdou Khoudous daa dëdd woon adduna ba ba sëñ Fallou mu mag da waraan tooñ léeg-léeg naan ko Abdou Khoudous de lekk ka naan te xam ne ëllëg yaa ñëppay duggandoo àjjana nee na bul foog da nga dugg àjjana bàyyi nee na koo kii bu dee maamam kon bu melee nii jaadu na sëriñ Abdul Xaadir di waajuram bu melee nii jaadu na nga xam ni moom sharia rek caaxaan yëkkatiwu ko dara lu ñorul yàlla yëkkatiwu ko nee na xam naa loolu baax ci moom kon man su ma amee di ko bëgg a gis di ko gis xam naa ni yombul. kéro bima koy mujj gis dafa na ma waxtu wala neex rek fajar ba gee mu ne ko fajar gi moom mbàkke naa la ko bàyyee rek bu mu bëggee mu ñëw mu ñëw kon loolu tawféex la moo tax ma ne ma am tawféex gis nga jullit it gii ñu weesu muy kori man Touba laa jullee moo ma jiite keroog moo jiite sëñ mi fi nekkal sëñ Touba. jiite murit yëpp bi mu noppee wax na ko wax na li may wax nii li may wax nii wax na ko moom mii sëñ Tuubaa loolu wax keroog nañ sant yàlla ndax sëñ Tuubaa yàlla da koo taw féexale ñaari fadilu yoo xam ne dafa la ko keneen muy kenn ki moom mii la tudd na ko ñaari yoon buñ demee nag ba sëñ Tuubaa ci boppam di ko sant ci li ko yàlla may ci may gum may sëñ fallum sëñ Abdou Khadir di ko jiiteloo ku fi jóge doon koo xam ne yéene na ko jàmm moom sëñ Tuubaa moom mii kat mooy woolu sëñ fàllu ne ko kaay taxawu ko kon loolu ñun ñi nekk fii tey xaw ma ndax xam nañ ko wala xamuñu ko waaye na ngeen xam ne am nañ tawféex ju rëy nee na loo rek laa yéene woon nit ñi moo tax ma woo leen nee na imaam Omar li muy nettali bañ demee ci Serigne Salihu ba ma ko nee suba la mu woo ci guddi gi bi gaa yi ne suba lañuy ñëw ci guddi gi mu woo ma nee na moom Serigne Salihu di laaj cheikh bi naan ko mbir mi noo ko bëggee. mané ko ñi ñew de xamna du ci ñak sax ño buñ lay nuyu danañ sol aw dal du ci ñak ño xam seen mbaxana duñ ko simi du ci ñak sax ño xam benn loxo lañ lay jox waye ma ñaan ma lay ñaan bakki nga dimbali leen rek bu leen ko topé ndax aada ji la te lu mëna xew samay bay lañu te ba dama bëgg ñu mucc fi mucc fañ jëm mu ne ma loolu cosaan la rek li ma la ciy may mooy bu ñu ñëwee duñ toog sax ca gannaaw dañuy dugg ci ëtt bi fekk ma ci kees gi te may naa la kenn ku ne bu dikkee na ma jox loxo daan ne ma boo xëyee na fi ñëwaat keroog bi mu ñëwee suba teel ñu naanandoo kafe saa su ne mu ne ma ndax xam nga fuñ tolloo keroog bu ñu demee bañ na ñu ngi tollu xombal mu ne ma diggante xombal ak nangal ma dey jamono ya ma daan dem sow bu dee nawet la foofee la ma taw bi daan dawe toujours Serigne Saliou ba garab ga ma daan seeloo dama ko mujj xàmmi sax ci Serigne Saliou waaye boo gannaaw ba xaw ma lu muy wax ndax boo sëñ mu Niang ni ma sëñ Saliou si la ni ma. nema ma nak dang ko waron la ci garab ga ndax xamna ne am lu ci ndax ndax mom du dox sayir bokol ko la ko nak dina ci wax ay xewal lolu bis bobé le won nee biñ ñëwé it kenn ku ne di nuyu diko jox loxo serigne fallum serigne sooy bu day tok ba yag rek mu def ko jël kéro bañ taxawé gisunu ko sax mom serigne fàllu Eh? mu ne ma sa mbokk yii day mënuñu laa fay ndax Serigne Saliou fu mu toll nga xam ne ku ko gis sa yaram araamal na sawara mu ne may naa kenn ku ne nuyu ma nee naa buñ ko xamoon day dañu xam ne yow mii mënuñu laa fay te gannaaw loola rek lañu la ñu bëri wàññi ko Serigne moomu nag daam génn guddi moo imam Salih Sylla ne ko dama toog sama xel ne ci sëñ bi boobu maa ngi Tuubaa ma ne ko ndax heure bi naa ko mën a gis mu ma du yomb de waaye yow dama seetlu heure boo ma waxee ci sëriñ bi bu dee mënta ne bu ma demee day nekk ne ko xaaral ma dem kool xool ba xam jege këram jannatu dem ci Serigne Saliou daal di toog tuuti wooma ne ma nee na nga ñëw bi ma demee ma daje fa ak Serigne Fallou mii nga xam ne da lay wóor ne koo fa dajeel ci waxtu woowa am nga wàcc waay ci Serigne Saliou mu nuyoo lañu la ci yéeme nag mooy bi ma laa dugg xam nga ci taxet gi rek maa ngi naan Serigne Saliou si la sëñ bi de bu ma ñëwoon mu jox ma lu tàng rek lu ma mën a barkeeloo mu ne ko xam nga ni sëñ bi fii daa guddi heure bii waaye dañoo dugg nuyu sëriñ Saliou rek mu joxoon ñu mbaar ma waaw ñu dem ubbi muy xéwali Touba yu tàng rek lañ tuddee ñami Touba rek nee na mag sëñ Fallu ak sëñ Saliou si la képp rek mu ne loolu sax duma koy nettali lu bari ndax dëkk bi loo wax ñu ne du dëgg wala lii moo tax. sëñ Fallou nee na lii de dëgg la moom sëñ bi nee lii de dëgg la moom ndeysaan ay eh waaye nee na taw weex jooju am naa ko ci moom ndax damaa naroon na sonn pour xam ko ndax waajuram daan ñëw pekes at mu jot ngan sama dëkku maam li ma liñ ma waxoon ne kum jiite doo lakk nee na booba tout tànk laa waaye lijjanti naa ba semaine ba mu fa def waxtu yëpp la ma jiite nee na booba maa ngi def CM2 ma lijjanti ba waxtu wu ne rek sëñ Abdou Khadir jiite ma ci semaine booba yëpp mujj gi heure bu ñëwee yàlla dimbali ma ma fekki ko mu dem ba sama maam jujur sama yaay këram Touba am na tabax bu fa ne boo xam ne sëñ Abdou Khadir ko tabax jox ko ko màggal gu jot. dafa ma daan yónni ci moom su ma demee dafa ma daan jox xaalis bu toll ci 60 000 at mu jot mu deme ko jox boo demee jox ko sa waajur booba xaw ma woon ni loolu la na ma joxe rek laa koy joxe at moo xam ne mu jox ma ma wàññi ko ma ñëw sama maam xool ko ma ne mu mu nit bu jot mu tee xam ne ah lii doy mudi gi nag ma ne ko ah maam loo may waxe doy na waar mu ne ma lim bi daa manqué ma ne ko nii la ma ko joxe mu ne ma déedéet mu ne ma fukki junne ñaar daan doon te sëñ Abdou Khadir daa way way koo xam ni lu muy def at bu at ma dellu see noonu la koy defe fu muy dem bis ba mu fa dem bu ñëwee noonu la fay demee ma ne ko ah kon daal moo ngi noonu nag soxna si mu ne ko loolu lépp. nee na day tax kon ma amel leen bor ci sama maam ak ci ñun ñi mu defal ñu lu ne nit dana defal loo xam ni te njabootam du ko xam yow nag yaay wëlbatiku di ci topp di ci naf nafi te moom mën naa bañ a xam lu tax waaye bu dee as gor la bu dee comme ñun ñu ñu defal ay gor lañ dañ cee war a topp rek mënuñu koo fay sax. waaye ñu góor góorlu rek loolu daal moom laa bëggoon yéen ñëpp ngeen seere loolu xam ko sama digganteek ak moom nee na borom àlluwa yeeg imaam yi dama bëgg ngeen di ko ñaanal sëriñ Fallu mii yàgg fi lool te wér ndax njëriñul yoonu muri gépp la te yaakaar naa leen ci beneen bi fii dafa ma ñaanal yéen ñëpp ngeen fekke heure bu fi mas a ñëw ma joytu ko ne ko jumaa de du ñu liggéeyal Serigne Touba bëgg naa ko am saa su ne it mu ñaanal ma ko ñaanam googa nag ñaan ga nag xam ngeen ne nangu na ndax jumaa ji taxawagul waaye lee tax mu taxaw am gim am moo tax ñu yaakaar dana am ndax pàkk ba am nañ ko amaat nañ beneen pàkk ba ñu ngi nii di ko tabax muy kër Serigne Touba étage yaa nga ne mu xet ca kaw kon nag kon nag Mbàkke yaa nu ko ñaanaloon ñu am ko kon ñaanal lépp sotti te lépp sell nag lépp dëppoog seen ngërëm ndax seen bos mooy bu Serigne Touba li tax imam yi ma woo leen damay jouer sama rôle rek ndax lu baax ñu baax dañoo war a dañoo war di ànd dañuy dolli ko rek waaye duñu wàññi ko yéen ñi jàng yéen a ma ko gën a xam yàlla ko wax ci alxuraan yonent bi jottali ko kon bu ma sañoon ngeen di dem lente loolu doon na ma neex lool association des imams et ulama bu Yoff jóge nañ fii dem gën a ji sëñ Fallu moom sëñ Abdul Xaadir ku ñëw këram Fek ay imam toog fa ñu ne koy imam la gane si danañ ko ne kon ñu la mata a gane si gane si nañ la ndax gan yu ko neex lay doon léeg-léeg it ngeen invité ko mu ñëw fii ci juma ji ñu xam ne am ngeen am ngeen gan gu rëy mu ne man nag lii laa mën muy boole li ci des nag yéen ci des yi ngeen def ko ndax moom mi heure bu fi ñëwee njëriñ la sëriñ Fallou Soy ba daana ma wax ne ab murit du gaaw a regg te wax boobu ñàkk koo jëfe moo sànq ñu bari ci ñu ñuy wax ay seex ak yooyu da ngay am cër bu ndaw am ñaari taalibe foog ne yegg nga te ñoom heure boo ñëwee ci ñoom ñu jàngal la lu bees loo gisul woon ak noo mën a toll nee na maa ngi koy wax ci journal bi ñu may defal ci cant gi. maanaam ko bi ma nee xamaguma bi ma xamagul sëñ Fallum sëñ Souhaïbou damaa jàppoon ne murid saadix waaye bi ma jébbaloo ci moom damaa jaxasoo ak moom tuuti ndeke xam ne man daal dese naa lu bëri rek ma jàngat rek bi ma demee ba lii keroog bi fi sëñ bi di ñëw fii imam Assane nekk fi nee na Baye Thiaw ñoo ñëpp jóge nañ fi ñu ñëw fi comme nii. ñu war a julli mu ñuy jiite ñu teg fi bibliothèque def ci ay meubles yoo xam naa ay estatu lay nduru mu siggi xool ko ne lii lépp day dañ bala ñëw julli nee na xam nga loolu ñu defaruwaat imam Assane ba bi mu fiy jóge fu ñu daje mu mu wax loolu seeral ko sëñ Fallou mii sant ko sant cheikh bi ndax li ma tax ma di sant gis naa ne booba nga ko dindi fa saasa te booba la gëj a gis sa sa sab saal ab taalibe day jëfe ndigal nee na man ma jàngaat ci bés ma ñëw fi di wax maa ngi wax in inna ibna abdullahi faaxa kulla man abdahu aw yubdiyu xaaliqu zaman sëñ ba na ma in nab na la ñuy wax waaw sëñ ba daal di koy defaraat ca saasa nee na bu ñëwee rek ne loolu nag moo tax ñëw yi baax ndax fu mu ñëwee ñu yokk ñu yokk lu baax wàññi la bon kon sëñ Fallu muy ñëw dafa baax imaam ne loolu daal laa ci bëggoon a yokk incha allah dëgg la jërëjëf manaka man day Cheikh Mansour Diouf sa dom dama bëgg nga ñaanal leen moma gënal mune ma wa nga dëgg de nee xam nga ne kon ñaan ga gën nee seigne salou ci mbax ga ne ko kon jëlal ben million bi nga jox leen li ci dess nga ñaanal leen ñu ñaanal leen. sant bu baaxa baax di la gërëm bu baaxa baax ndax li xamna ni ñiko am bëriwul jëf mbacké kon nag sëriñ sëñ bi ne daa bokkut ak noonu day bind soog a mën a wax nee na loolu may wax noonu waaw nee na sëñ Muntaxa fii mu toog xam naa ne moom mii mu ngi ne ñoggu xam naa ni dafa am fu mu la teg ndax lii at mu jot mu ñëw def ko waaye laata muy ñëw fii waaj na ko ba tàyyi de saa bu kiyee rek daal di toog nee na fii mu toog wali sam weedey bu ko woowoon fii la koy ci wuti Touba nit la koo xam ne doon na ñaan lii mu dem këram am na ko doon dem këram bañ waxee ni Cheikh Sidi Muxtaar dafa soxla sëñ Fallou lépp fa lañ ko ci dem ñibbi kon ak génnam yombul waaye am xelam ak yéeneem daj na fi bokk déglu sëriñ Fallu nee na li ma ciy wax mooy nee na aaya bi sëriñ bi waxoon léegi rek waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu nee na ndigal loolu yéen yéen a ngi ci alhamdulilahi rabbil alamin nee na ñi fi daje bokk ñi tarixa l'islam moo leen boole nee na loolu tegtal la na ci ndigal la ñu ngi ci maa ngi ñaan yàlla loolee sax te gox yëpp roy leen ci ne loolu rek la amul luma ci wax jere jërëjëf Mbacke fu way tollu rek na talal loxom taw amin amin ya rabbi amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin Mbacke amin amin آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين آمين آمين يا رب العالمين tàmbali léegi léegi bi mat ñeenti weer boo ñëwee ni ngay dalee ci kër Sëñ Tuubaa yi ñu koy dalee incha allah dem na ko ñeenteelu niveau ñeenteelu niveau bi da ko waajal mbaa mu mag yaatu boo xam ne bépp verre lay doon am enseigne bi ne ci kaw ndax boo des ngay néew daal ñaar téeméer ba ñaar téeméer nga daan fay amiin amiin amiin moo ko def moom waa ji doon lay wax léegi nekkoon na imam fii ci yow. waaw waaw mooy mooy mooy suñu jëwriñ fii moo nekkal sëñ fii ci Ndakaar sa waaju du seede woo boo ma sànni diw dafa bañ sëñ Tuubaa danaa ne déedéet da ko umpale waaw fekk na ma teg samay xasida gi mu jaar ci kaw mu jaar ci kaw jaar ci kaw waaw ndax umpale sëñ la ca teg accidenté wala liggéey mbokkam ne dañ koy jaar waaw Hello, Dana. ren jii nag def nañ fi ay kii yu bëree bëri wax dëgg yàlla jotaay yu bëree bëri

la coutume bi di jaraaf seen liggéey donc tey wax ji nga xamante ne moom la ñu am pour wax mooy dalal suñu gan yi di leen ñaanal lépp loo xamante ne moom ngeen fi ut si yàlla na leen ko yàlla defal di wax ni yoof si boppam ñu ngi am ngërëm ak cant goo xamante ne gii dañ koy defal Cheikh Mansour parce que Cheikh Mansour taxawu na dëkk bi si fànn bu nekk si volet boo munti tudd rek Cheikh Mansour liggéeyal na ko dëkk bi si éducation suñuy doom yi suñuy sët yi suñuy yegaar baat yi ñëpp xam nañu jamono ni mu soppe ko te gis nañu loo xamante ne ëlbati na ko suñu njaboot jëmale leen si wàllu diine ya defal leen loo xamante ne li jafe na suñu borom kër ñu defal ko suñuy doom donc loolu su la ko nit defalee nga war ko sant beneen bi mu nekk si wàll woo xamante ne mooy liggéey bi nga xamante ne moom la ñu sumb di ko liggéey ci dëkk bi amul luñ ciy def loo xamante ne Cheikh Mansour jiitu si topp ñu si ànd ak ñun bu nekkee ak état fu mu mën ci doon lépp loo xamante am nañu ko mu dugg ci rëkk bi fii na ngeen xam ne li ci ëpp à 80 pour cent ci Cheikh Mansour la jóge donc loolu dëkk bi tey par ma voix dañ ma sant ni su ma taxawee ci mbooloo mi war naa ko yëkkati ñëpp ñëpp yëg ko ñu xam ne Yoff ci boppam mu ngi gërëm Cheikh Mansour ngërëm moo xamante amul fay di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may fan wu gudd di ko ñaanal mu ànd ak ñun di ko ñaanal li nga xamante ne moom la nekkee ak ñun di ñaanal yalla na ko si yàlla taxaw la nga xamantene nak mom la ko serigne bi sante si diggante Yoff Ngor wakam ak Cambérène yalla def na liggey bobu mu ci dox liggey bu mu ci fépp fep fo xamantene dégg na fa lëndëm lëndëm tal na otoom guddi dox nañu ko sotal nañu ko donc loola tam amuñu lu dul dëkk ci gërëm gërëm dong lañu am pour diko def Cheikh Mansour di sante nak ñi nga xamantene aussi ñoo fi ñew téwé fii di jiital maire bi nga xamante ne andi na fi représentation am ñu ñëw teew fii ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko xamal ne bés bi bésam la bés bi bésu yof gépp la képp koo xamante ne yaa ngi yewoo yof bés bi sa bés la di ñaan ñépp nag ñu ànd ak dal si ñetti fan yi ñu xam ne ay gan la ñu am ñu teral gan yi yaatal kër yi te xam ne li nga xamante ne moom lañ fiy def moom la ñuy fekki Touba ñu ñuy yaatal moom la ñuy fekki Tivaouane ñu ñuy yaatal moom la ñuy fekk fu neen fu ne si wàllu diine ñu duñu fa yaatal donc ñuy ñaan waaye dëkk bi nañuy yaatal xajal gan yi teeru leen te teral leen di wax ne cheikh bi ñun Fra si wàll boo xamante ne bii beneen domaine la Fra Yoff si boppam ñoom yëkki nañ seen kàddu di la wax ngërëm goo xamante ne gii amul fu mu commencé mais amul fu mu yem di la xamal ne en tout cas fa nga xamante ne fa lañ tegoon seen tànk démb ak tey fa la ñu ko gën di teg lepp loo xamante ne jublu nañ si war ko def si dëkk bi am nañu pour toog ak yow parce que ñun ñoo la faloon ci loolu ñoo yëkk woon suñu bopp jox la yow ñëwoo si ñun ñun ñoo ñëw si yow directement donc loola tey ñu koy feddali si bésab tey di la xamal ne tey lañ la gën a jàpp tey lañ la gën a jàpp du ma guddal nag damay bàyyi kàddu gi ak sumay nawle ñi nga xamante ne ñoo si topp tey ñoom ñu am loo xamante ne moom la ñu jottali mbooloo mi maa ngi leen di jéggalu di leen baalu wasalaam aousubillah mina bismillah rahim yëkkati kaddu nuyo nuyo bu gëna sel ci turu monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff ak délégation bi nga xamé ni mom la wax ma and ak mom pour ñëw ci cant di koy yëkëti di koy tek sa loxo yow cheikh bi di lay ziaré ci bis bi di nuyu monsieur le préfet di nuyu sunu sang bu tedd bi bu Seyni Laay di nuyu sëriñ yi fi nekk yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa yoof yi fi fekk yépp frère yoof yi jaraaf yi ñoom ñépp ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu jigéen ñi di nuyu taalibe yi di nuyu ñépp di am kontaante bu rëy

begitu ngi sama gana eh, Mamadou Kara karameng ànd ak son chef de cabinet eh, Babacar Meng mom aussi mi ci si bi ànd ak ñi ñom ci si fatia ñom madame ndoy ñom ñepp ngi si andak ak ndaw ñi donc ñu def une délégation ak bis bi lu mu xat yépp ñu def une délégation pour téré cérémonie bi nga xamé ni dafa am solo trop

moom yi nga xamee ni yenn mission yi nga xamee ni moom la son excellence le président Macky Sall jox si wàllu ministère am bi mu yore mooy ministère de la santé et de l' sociale nee na mi ngi la siy gërëm bu baax mi ngi ñuy soññ ñun tamit depuis CDD bi taxawaay bi nga xame ni ak engagement yi nga xamee ni moom la jëloon ñu respecté ko ñu xool est-ce que dox nañ si ak fan la toll dafa naa ni tey suba tamit. mag le directeur de cabinet tok nañu di xol di def le suivi parce que suivi bi war nañ ko def tay ji suba ak gannaaw suba ba mu wor ni lim nu santone yep ak engagement yi mo xamé ni mom la waxone ñu jël ko yep matalé na donc euh, cheikh bi ñong lay gërëm bu baax di lay sant di nuyu mbolo mi xana di comme ni ma ko waxé won démb rek di wat ñaan parce que euh ñoo ngi sàkku ñaan ministre ci boppam mi ngi sàkku ñaan parce que bërëbu ñaan la nekk ñu ñaanal ko si li mu nekk mooy si wàllu maire bi parce que am na yu am solo ñu fi def ak yoo xamee ni mi ngi koy tàmbale di def ñu ñaanal ko si ñaanal aussi le président Macky Sall si li mu nekk aussi si walu PSE bi ñaanal leen pour que aussi jongante yi ñu jëm ñoom ñaar ñëpp yalla may len ndam si li jëm donc di len kay denkat lol la la amone si kàddu yu may sanni di len gërëm di len sant jërëjëf ku fi toog na nga fekke déwén ku sa ku yàlla na nga wér ñu ngi ziyaara jullit yàlla yépp di leen ndokkeel ci bisub yàlla bu màgg bii di ñaan yàlla rekk la neex ci màggu yàlla ak baaxu rasuulullaahi mooy ku toog ci jotaay bi bu déwénee yàlla na fi toogaat ak képp ku wax amin ñu ngi tàllal yàlla loxo bu baax kuy waxal yàlla rek te yàlla tax xam nga ni yokku nañ bu baax dañ doon andu di puus di puus di dem di ñëw ba egsi ci bërëb bu tedd bu sell bii kon nga xam ne yàlla mu ngi bàyyi xel kon ku fi toog yàlla nga fekk déwén di indi ziyaara ku tedd ki nga xamante ni ku ñëw yoof démb ci pénc mi kenn xamul fooy toog mu doon guddik Seydina Limaamul Mahdi Muntazar sallallahu alayhi wa sallam biig doon ñaanu bàyyi laay mu baax ni ñu jeexal ci fajar gi ñun ñëpp ñu dem ziar xalifa bi bi ñu ko ziaree ba pare moom mu yónni nu ñu taxawal ka fi te it bu taxaw bi doon taxaw cheikh bi rek mën na taxaw taxawaayu Serigne Ablaye Thiaw parce que kër baayam la këram la miin na fa mus na ko jox loxo mu ni kan Cheikh Mansour Diouf sama doom kon Serigne Abdoulaye sa baay bu tedd boobu ne ni mu ngi lay ziar. nee na lu fi neex yàlla yàlla fi am nee na lépp lu fi nar nit nar a yàq yàlla na fi yàlla jële ba nga dem sa yoon nee na nga tàmbalee keeg ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ñu eggale jàmm sa woo ne mi ngi lay ziar mi ngi lay nuyu mi ngi lay jox lépp loo bëgg mi ngi lay ñaanal nga yeggale bis bi jàmm sang bi ñu ngi nuyu shérif bu baax ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñu ngi lay ziar sëriñ bu baax a baax ñu ngi lay ziar bu baax di ziar suma seex sama soppe sama xarit sëñ Abo Mbakke ñu ngi lay ziar bu baax di ziar fara yoof yëpp di ziar mbokk julli di yàlla yi fi toog yëpp di ñaan ci doole si Duna Mohamed jili ñu ngi lay ziar bu baax a baax ku fi toog yàlla na nga fekke déwén ku bëgg a fekke déwén ku bëgg a fekke déwén ku sopp sëriñ Touba na ko ne jox sa borom loxo ñu fekk root déwén ñu ne asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim ñi ngi nuyu mbooloo mi yëpp bi fi di jiital ci nuyoo bi suñu sang suñu sëriñ Cheikh Mansour Diouf di ci teg euh, monsieur le maire de la commune de Yoff di ci teg suñu sang le représentant du khalife des Layènes di nuyu le frères de Yoff ak les imams ak bépp kilifa diine ak notable bu fi teew tey sang bi fi jaar léegi ñu ngi def ay ñaan ngir yokkute loolu yaakaar naa bokk naa si ñu ko mën a dëggal ndax daaw si jamono jii mën naa ni suñu sang Serigne Cheikh Mansour moo ñu daal fii ci Yoff te jamono jooju ñu ngi ko doon sàkku ñaan ngir yaakaar bi tax ñi ñu fi teg bàyyi ñu fi ñu mën koo matale te yaakaar naa ni daaw ba leen boobu ba léegi yàlla mu ñu teg ci yoon mu ñu dooleel di ñu kàttanal ba ñu mën ko taxawee ba mu mat sëkk si jamono jooju tamit doonoon na occasion ngir ñun en tant que autorité administrative ñu gis bu baax gisal suñu bopp solos bis bi ak dayoo bis bi ngir li nga ciy def Serigne Cheikh muy accion sociale bi nga ciy amal bokk na ci biir màkk yi ngay joxe euh, don yi ngay remettre askan te tey lu am am solo yokk muy place bi ñu nekk nga am yéene fas yéene taxawal fi bërëbu jaamukaay yàlla kon loolu da nga ciy sant di la ci gërëm chef bi te aussi di profité waat ci bis bi di sàkku ñaan bu baax a baax ginnaaw bu ñu fi teewee tamit si suñu coobaree boobu dañ fi teew ci ndigalu suñuy kilifa dalee ko ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall bi nga xam ne moo jaarale ndigal loolu. ci monsieur le de Dakar bu mu yegg si ñun parce que nee na même su fekkee ne temps bi ko mu nekk fi mënut a ñàkk yebal ndaw ngir xam sa dayoo sa wàccuwaay ak solo si bis bi sànq ñu ngi koy waxtaanee ci biir chef bi ñu ngi wax ni ñun dañ leen a jàppeewul rek kilifa diine waaye dañ leen a jàppee àddina ndax jariñ bi ngeen làmboo te dëkk bii ñu ne muy Sénégal dafa am ay réalité te bokk na ci réalité mooy jubóo bi nga xam ne kilifa état bi am nañ ko ak kilifa diine ndax gëm nañu gëm nañu bu baax ni réew mi amee dal am jàmm boobu ba léegi amee ci wàllu bu rëy rëy rëy loolu moo waral suñu teewaay tey ci bis bi di profité waale aussi di sàkku ñaan ci sama baat nga ñaanal jiitu réew mi monsieur le président de la république ngir jongante yii ñu doon nal yàlla def jàmm def daal ci réew mi ba ñu mën ci yegg ak jàmm ak salaam shine. I am. Mira. santaat moom mi ko yelloon di ko tuubal te fas yéene koo jaamu jaam bi génnul liggéeyal sëriñ Tuubaa ba àjjana barkeb sëriñ Fàllu moom sëñ Chouaïbou moom sëriñ Tuubaa ñi ngi ziar mbooloo bi fi teew yëpp leen sant leen gërëm ginnaaw bi leen nuyoo ah di jiital ci nuyu gi ak ziar bi serigne muntaha mum serigne basirou Mbàkke mum serigne Touba ko ñaanal mu yagg fi lol te wer ba yam bi ko serigne Touba yam mu am ci lu kawé ndortam ànd ko ñun te sa yu gesso gis ñu di ci tek suñu serigne suñu buntu serigne Touba suñu mbokk suñu xarit di suñu lépp tey ak ëllëg muy sëriñ Fallou mu sëñ Chouaïb mu sëriñ Touba ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te yàlla defal ko tawfeex may ko wér te defal ko jàmm te dimbali euh, di ziar bu baax kilifa yi fi teew yépp ah, di ci jiital ki nga xam ne moo fi mag ci direct sëriñ Touba yi fi toog muy sëriñ Abo Moustapha mi moom Serigne Moustapha moom Serigne Saliou ah dafa mel ne wéy juróom mooy ñëw nii muy maam Cheikh Anta moom Serigne Fallou moom Serigne Touba maam Cheikh Awa kon sëñ maam Cheikh Awa Balla moom Serigne Fallou moom Serigne Touba. Mbacke Aïsine fii sa kër la. santaat yàlla bu baax waaye daf mel na dañu war a dolliwaat santaat bu baax a baax ndax pàkk bii nga xam ni sëñ Touba lan ko moomale fii ci Yoff te mu jaar ci jëw jëwliñam ji di seex Mansour juuf caatum sëñ Fallou sëñ Cheikh Awa dugg si na ci pàkk bi sëñ Fallou nag bi Senghor di wut réew mi daf ko ni woon dangay dem ba ñi nu mujj ci néegu sëñ Tuubaa nga wax leen ni leen daa ci jot nga fexe ba ñu wax la ni la daa ci jot demal ci soxna May fexe ba mu wax la ni la daa ci jot demal ci Cheikh Mamadou Moutada fexe ba mu wax la ni la di nga jot réew mi ñooñu buñ la ko waxee rek di nga jot ci réew mi ndax ñoom ñooñu mujj ci néeg bi te ku la mujj ci néeg bi bu la boo fa bàyyi woon dara moom nga koy laaj kii nag moo mujj ci sëñ Fallou te sëñ Fallou mooy yaakaaru àddina bi yëpp kon nag xewal dikkaat na ci xew-xew bi ki dem bi la fi sëñ Fallou jógee moom sëñ Abdou Khadre fii ci tàkkusaan ñu toog ak moom fii loolu rek doyoon na waaye sëñ Cheikh Awa dafa am yëg ci mindeef yëpp rawaatee nag ci Cheikh Mansour Diouf mi ndax xam na ni Cheikh Mansour sëñ Touba rek lay liggéeyal te sagu sëñ Touba rek la bëgg moo tax mu def lii. moo tax mu def immeuble bee nga xam ni kër sëñ Touba lay doon te fa la sëñ bi jëkkee kon ñu jox jébbalaat kàddu gi Cheikh Mansour bu ko defee sëñ bi soog ñoo ñaanal incha allah. jërëjëf alaaji jiili kii woy juróom wa Serigne Modou Moustapha dafa fondation Jumaay Touba ci jamono boo xamante ne wor du sax yombul benn dëkk kenn fa daan am sër kuy dem àbb ko boo ñëwee delloo ca jamono jooju la sëñ Modou Moustapha ne dina utal sëñ Touba ab raay booba weñ wi jëm ci ileer rek ñi ko mën a am bari dindi tan ci télévision bi génn benn waay di jooy ut si ma ma ne tey de am naa combat parce que kii ni muy jooyee mbaaru damaa wax erreur mu ñëw nuyu ma ne ma man du woon sax jullit sëñ Falloo ma def murit mën na ko ci lan mu ne ma ci gaal yi daan tukki Barcelone Barça ñu bari dee ci ndox mi ci laa bokkoon bi ñuy jël gaal gi Kayaar lañ ko jëlee. Seydou Mati Banjul Ahmadou Seexu Samba Sadio Greg Greg Dawme Teñ Tanor ñu tooke ko Lambaay kenn santa nooy ci lañ toog ba yàgg maami Serigne Cheikh Awa Balla Serigne Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Mansour Diouf ne am naa muridullahi tubaab bi ne ko bu mu ci dalati mu ne ko dootu ci jóg ñu yóbbu ko ndar Ndakaaru. Conakry Grand Bassam Defloj Mokkel Batako Abarisid Kutumi Dawme Booma Banaana du ngeen jóg taxaw ci kaw yëkkati seeni loxo wax jërëjëf sëñ Bam cheikh bi continuer sant gi ren sant gi ren tey la ñuy wane ne sëñ Tuubaa amut morom ko démb amu ko tey tey la koy gën a ñàkk li nga def nag moo neex nit ñi ndax dafa wax ne fa kullu yuridin yuridal murida li xadratillahi walan yahida salaam intama ilal jilaani أو انتمى لأحمد التيجان أو لسواهما من الأقطاب is kulluhum xat xatan ala sawaabi Serigne Touba nee na Cheikh Ahmad Tidiane Serif gërëm na ma raddi an yi si tuxoo Tidiane yi alay ridwaanu mu biidul jaan yi Serigne Touba nee na Cheikh Abdou Khadir Jeylaani gërëm na ma raddi an yi si tuxoo Jeylaani yi alay ridwaanu le si axlaan yi Serigne Touba nee na xulafaalu ba gërëm nan ma raddi an yi xulafaalu arba xusrudan mu xarabina mut ba nee na nag loolu laa def ba jël samay kayit di tagg Moustapha su ma mësaan di la tagg Rasulaay aras day jaayu kursu day yëngatu malaaka yëpp dañuy taxaw di sàbbaal xalim ak Serigne Touba isa katab ihtazal arsul baax yi wa sabahat al malaayikati baax yi nee na Rasulaay laa di ko tagg naan ko man sanna annaka tuqaakil basara wal junna wal malaka lan yu basara aka siwaaka xayra hoo min al wara wa anta xayrin sa illee sawara matti ilayka laaw fadlan saxaraa kamaa ilayka xaadama lam yusra mattuka ah dësal la si tataxkura ahmaala yaa xayral basiri sakara dawatullahi alayhil basara wa jinne woon tekki médaille jox Serigne Touba ñu ne ko médaille Omar koo ko jox mu ne ràngal naa ko Ibrahima Fall lamp Babul Mouridine Ahmad Fall Sayer Ndiaye Birane Ndiabou Matia Ngaye nee na ma ne gees ñaari saaba des Ousmane di ma xool ma ne ko ak i sër bi man dëhëb naa xafaana salxaya ma ba duwal kasirun wal ikami moy fatan fatilun labibun harisun yaqisun nabun harisun halatati wal qidam sëñ ma sax jere jeuf ma mor ko yengal nga ma sax kon da fekkon ma kilifa jotaay gi sëriñ Abo la mu tok ci kaw bala may daaneel sen wéy jurum di suñu sëriñ suñu xarit di suñu mbokk ma seen ko muy ñëw ma ne kon kilifa jataay ga dëgg ma ngay ñee di ñëw te gis nga li ñu defal sëñ aboo la ko sëñ aboo defal daa daal di wàcc suñu mbaxanaam toog ci suuf muy sëriñ Cheikh Awa Balla mu sëriñ Fàllu Mbàkke Xaadim Rasuul ñi wax nag ni tey ah ñu wéyal nuyoo yi jëmale ko ci borom ndomba tànk yi fi nekk di dalal gan yi

ne ñoom bu samdee dinañ ñëw ñuy samay wëllëre yu baax di samay mbokk ñii di samay baay ñii di samay xarit ñii di samay doomi baay ñu séq lu baax teraanga àddina ak bu alaaxira lu ñu nekk ma koy xam lu ma nekk ñu di ko xam tey ñu ne foog ñu ñëw ànd ak mën ci bis yëpp ba mu jeex mu ngi ànd ak imam kër Diop male bu RTS waa FPU fédération pour la paix universelle ñu ngi nelee dirigé par le docteur Abdourahmane Gay. walo waalo mais c'est un professeur dans une université de New York mi ngi ànd ak euh, notre ami Touram Edwin jóge Cameroun ak wa kër Cheikh Ibra Fall yi fi toog nga xam ñoo mom bis bi sëñ Fall ngi toog moom sëñ Cheikh Fall Baye gor. di tamit sama rakk ndax ñoo bokk ndey ànd ak njabootu Cheikh Fall gi yëpp sànq la ma sëñ Saliou Fall Fat Sow woo bu sëñ Modou Moustapha wax ma ne sëriñ Saliou Fall finance di doomi sëñ Modou Moustapha moom la sëriñ bi yabal ren ngir mu ñëw fi xam naa jombul ngoon bu ñuy def yi fi Baye Fall ci lay ñëw ki doon jàng léegi tamit balaa ñuy daaneel laxasaayu takk ndigam sëñ Saaliw Fall bu sëñ Moodu Moustapha Fall moo ko jur waaye dafa def yëfi taalibe ndax Baye Fall taalibe rek di nuyu mbokk yi jigéen ñi fi teewu yépp ak ñi nga xam ne tey ñoo waral bis bi ngir yàlla ak jëmmi Cheikh Ibra Fall muy suñu mbokk yee teeg te ndimbal lii jëm ci ñoom ak waa dëkk bi nag ak wa rew mi ak njabot gi yepp kuma faté mu jéggal ma ndax léeg-léeg li ñu wax kuy lim di nga djum mën nga bañ djum sax mais mën nga faté si la ñu lay nuyu bu baax <clears throat> bis bi bisub Cheikh Ibra Fall ma def sank serigne abo def ko kenen def ko Cheikh Ibra Fall ñu ko jangal moy ak talibé te lolu dafa bokk ci li nga xamné dafa neex lool ci yoonu mouride manam ab murid lam gëna bëgg moy nga ne ko ab tali la la ko gëna neex moy nga ne ko murit sadiq la bima taxawé di wax seen serigne Cheikh Awa Balla muy ñëw dama fokk sama baxana sànni sama yat ram ba paré mu neex lool ci man ma gis serigne Abo def nonu ñepp def nonu lolou Cheikh Ibra Fall moñu ko won Cheikh monde moom day fierté bis bu jot ma suma sañon waxuma la état du Sénégal mais les états du monde dañuy inspiré wu ci Cheikh pour développer le monde ndax Cheikh Ibra Fall daf ñu jàngal lu am solo loo xam dafa am solo ci nit te sax nit humilité mooy wàcc oyof loolu la Cheikh jàngal ñu jàngal ñu leneen lu am solo ci nit mooy solidarité maanaam koo tane nga dimbali ko wax naa ko fu nekk xam naa dinañ xanaa muy wax Cheikh Fall loolu rek lay wax waaye dafa bokk ci li ma gën a marqué ci ñoom ndax koo xam ne fa nga dëkk boo fa demee buur nga fa ñu naan la buur mu dëkk Kayoor sant Fall war a nekk dammel du Kayoor nga boole ci yalla may la teranga ba nga xamni ñepp xam nañ ne am teranga, manam alal lu sëñ Tuubaa ma sa bëgg rek ay gal la ko ci defal yobul ko nga boole ci duma la wax waliw nga mais nga romb waliw ndax da daan def lu waliw munul Cheikh Ibra Fall da daan wax ak ñi dundu di wax ak ñi dee di wax ak ay nit di wax ak ki mala di wax ak ay chose di tubaab naan chose mas nay taxan di gor di dagg di gor di dagg àll ji dikkal ko yóbbu ba muy yóbbulee ca sëriñ Touba tax mu gën a sawar di di gor di dagg di gor di dagg ba yàgg mu takk ko bëgg koo yëkkati mu diis àttanu ko mu tegaat ko arrière xoolaat li mu taxan ne ko yaa ñàkk jom yow ma gor la di la yóbbu ci sëriñ Touba ngay bañ yaa ñàkk jom arriéraat ñëw ne ko cas loolu mel ni xob mu yanu ko yóbbu kon ma nga doon wax ak ay chose Cheikh fekk na ko faatu mu dóor loxoom ci kawam ne ko jógal liggéeyal sëriñ tubaab kooku jóg kon day wax ak ñii dee Cheikh Ibra Fall moo ñu won nan la ñuy waxee kilifa moo ñu jàngal ñun nan lañuy ñuy defee ak suñuy sëriñ Cheikh Ibra moo ñu jàngal ne sëriñ Touba kenn du ko wax déedéet moo ñu jàngal ne sëriñ Touba kenn du ko ne xam naa sëriñ tubaa kenn du ko ne mën na te loolu la murid yi di def bu ko defee ñi xamul bu ñu gisee ñuy raam walla ñuy toog ci suuf ñu naan man duma def lii ndax du jàmm jaam ñun ñëpp ay jaam lañu sëñ tubaa mas na ko am ñu mu woo. diw mu ne mbàkke demal ci rondal gee jox ma fa nangam nga ma fa def kooko dem ñëw ne ko nekku fa mu waxaat keneen kooko dem ñëw ne ko nekku fa maam Cheikh ñëw mu ne ko Ibra Fall mu ne ko ne ko demal ci rondal gi nga jox ma fa nangam be mu dugg ca rondal ga rek sëgg fa lu yàgg sañ Tuubaa ne ko Ibra Fall xanaa gisoo ko mu ne ko maa ngi koy bëgg a gis de mbàkke xanaa gisoo ko maa ngi koy bëgg a gis te mbàkke ba sëriñ bi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko dara nekku fa dama leen di woon nu ñuy wax ak sa kilifa léegi gars sëriñ bi day wax ñu naan non sëñ bi moom vraiment warul woon def nii sëriñ bi moom li mu def loo ci xalaat nangam nangam ab sëriñ kenn du ko xalaatal ndax lu mu def noonu la Cheikh Ibra Fall moo doon dem ci ginnaaw sëriñ Touba di dem ci tubaab bi di wax ak moom di négocier naan ko sëriñ bi jëlee leen ko fii indi leen ko fii coono yi metti na nangam nangam te sëriñ bi du ko xam ab taalibe day doxal sëriñam waaye du yàqal sëriñam ab taalibe day defaral sëriñam waaye du ko jaxasee ki nit Fall bu dajawaan góor yàlla yi nga xam ne sëriñ Tuubaa nekk fa ca la leen naan woon ne benn góor moo fi am mooy man waaye bu dee ci sëñ bi damay waaf keroog ba ko gaa ne ku mënta tari faatiya doo reer ndax booba pour ñoom jàngul mu ne cas bool bi naaw ba ci diggante asamaan ak suuf ne leen ku munta agsi fii doo reer xam nga yooyu dafa mat a xam ne Baay Faal yii du ñuy dof de du ñuy jeyil du ñu ñu lot du ñu ñu du ñu ñu ñàkk koo ci gis ba yaakaar ni yorul man na laa jënd waaye la ngay jële sa alal di ci def mu jaral la ko moom daf koy jaral bosam mu koy ñoŋol ko dajal ngir yóbbul ko sëriñ Touba koor gi bis bu jot ñu yóbbi ndogu wax naa yéen fii ne leen sëñ Amdi hadifal Fall moom Assane Fall 313 mbana lay taal par semaine mbana mu ne nag nag wi mu koy toggee mat na deux million ñëpp a ko xam par semaine te xorom si sax waxuma la moom waaye ñu koy togg mayu leen ñu ñam ko ndax kenn du yóbbu dara ci sëñ tubaa di ko ñam ndax pour moom boo ko ñamee aw des ngay yóbbu te sëñ tubaa kenn du ko jox des te li ci neex mooy ñoom xooluñu ne lii kat sëriñ tubaa la woon ñi fi nekk léegi du ñu sëriñ tubaa seen yoon nekku ci kii mujj juddu ci sëriñ Touba nekk sa taat taat taat taat Serigne waa Kër Cheikh Ibra Fall Serigne Touba lañ la jàppe doo ci dem kenn ba gis këram rafet ba nga naan kër diw gi ni mu rafete koo ci dem këram bu dee ci kër ngay nawe nit wala ci kër ngay xeebe nit boo watul di nga ko xeeb moo ne la muy yóbbu ci àddiya de jënd na fukki kër ndax ku dëkk ci néegub ñax di yóbbu addiya quatre cent millions kon kooko xam nga ne du kër moo ko ñor kon nañ ci roy rawatina ñun ñi nga xam ne ay liboog ñeneen ñu di Baay Faal yi xëccooy kër di xëccu ay miraas di xëccoo ay néeg ak ay ëtt Cheikh Ibra Fall multimilliardaire la woon 1919 dañ ne woon maam Cheikh Anta borom gaan borom dërëm ngërëm ni ko maam Mor di waxee léegi ne Serigne Touba dañ jàkkaarloog Seydina Ousmane di ko tagg ba seyna Ousmane jël médaille am jox ko ko médaille seyna Ousmane lan la mooy alal ju bari ak teranga ba ñëpp ruus ko ba yonent bi ruus ko ba may ko doomam mu jóge fi mu mayaat ko doomam grade yooyu la jox ko Serigne Touba Serigne Touba jël ko. jox ko maam Cheikh Anta moo tax maam Cheikh Anta bëri woon alal doonoon borom dërëm ak ngërëm waaye sëñ Tuubaa nag yokkal ko ca defal maam Cheikh Anta lu ñu defalul Ousmane kenn du Sëriñ Bamba moom mooy borom maa faaxal mu naa moom mooy borom yàlla jox ma loo xam ne amul woon loo xam ne créé wuñ ko donc lu ñu créé wul amul vocabulaire yaa de ko ma jox la lu baax mu ne ko jox ma lu gën baax. mu ko lu gën bax moy gën li dafa bax li dafa gën mu ko comme créer nga bax créer gën jox ma lu gën gën ya ne ko lolou créer guma ko woon mu ne ko loolu laa bëgg mu ko nañ ko jaayante mu signé ko moy ma faaxal mu naa moo tax serigne touba fekk ma ci ante mu tok ko plus ngay banex rek ngay yegg ci sa borom ak banex bu meuna doon nak bu la neex rek bo xalaat rek tant que ça lui fait plaisir

buñ na sànnee ngay wàcc te chute li tubaab naan une chute xam nga wàcc dafa gaaw mais bu doon wàcc pendant cent cinquante années Cheikh Ibra Fall lu tax mu laal suuf kooku buñ ci doon wax tey duñu fi jóg muy dem bañ ne ko yaay baabul muridin mu jàng alxuraan ba ni ar doon buur ma ne la Maam Cheikh Anta moom nga xam ne defal nañ ko lool ba 1919 ñëpp naan c'était l'homme le plus riche d'Afrique nee nañ Cheikh Ibra Fall la ko ëppoon alal ba pare bu xëyee mu sol ay sagaram di dox ci naaj wi yorub këlloom di màjjal lu tax kon lottu taxul mu ko doon def ma ne man sama xalaatu bopp kenn waxuma lu tax ma ne xam naa dafa am lu mu bëgg a jàngale li mu bëgg a jàngale mooy humilité mooy nañu wàcc ak solidarité mooy koo tane nañ nga ko dimbali kooku pour man kenn warul dara defal dara Sëriñ Tuuba te te jaaroo ci moom te boole woo ko ci ma ne kon bis bii nañ ko ko tuddee muy bisub ubbite bi fu ne bis bii nekkagul cant gi mais daanaka jël na cant gi bis bii mooy bisu ubbite gi rek ndax man cant gi dañ ma ne woon def ko cant mu doonoon benn bis ma xam ne Chèvre Fall am na ci wàll ma ne ko ubbi ko nit nag boo ko woowee di ko fàttaliku da ngay def tuuti ca lam daan def mooy humilité ñu wàcc ñun ñëpp toog ci suuf ak solidarité dimbalante moo tax ma ne nañu xool ñoo xam ne jàpp nañ ne ay xëy na ay néew ci doole lañu xëy na soxla nañ ko ñu jël li ñu am ak li ñu jox ak li ñu dimbalee ñu jébbal leen ko ci bis bi ngir Cheikh Ibra Fall ñu commencé woon ci fukki nit ren ñu ngi ci deux cent soixante dix personnes ñaar téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ku ci nekk ñu fas yéene laa jox lii ceeb bi suukar see ak yére yi ak satala yi ngir yàlla ak jëmmi Cheikh Ibra ngir fàttaliku ko ngir ku ko gisit xamne ne lila la Cheikh Fall daan def boko mané roy nga diko roy comme ñoo jox ñep te ñëpp a jox sa su ne ñu am lu ñu for buñ ko foré yobbu ko ci hôpital ta xamne ne ku ney feebar hôpital bi dañ leen daan laaj at bu jot lu ngeen bëgg ren docteur ne ma sha allah kon lolu sante yalla la ma ko mais sha allah bi du tax ma tok ñu kurti kurti ba am ñaari lali hôpital yu bax am ay beeke am ay drap ay eau de javel ak yooyu ak yi ak couche yee ñu jënd ci valeur u deux millions couche deux millions de francs CFA couche yee pour jox ko maternité bi ku fa wasin ñu jox la ko pour say doom ñu bëri nag jàpp ci ndax Adja Boly ma leen toog ñëpp xam ko a part ceeb beeg sukkër si li lepp moko fi indi ceeb beeg sukkër si mom man ma bañ duma ko baye ak yefi parce que may fokk ma barkelu ci ne da ko naro na indi ak yenen ak yenen wa Expresso tamit indi fi ceeb fe ci keur ga amat ngom male di amis bok ci njabot gi ci wa kër yi couche yi moom moo ma ko jox bi ma ko nee dama un million mu ne ma dama ciy un million muy deux millions waaye yow téye un million te bàyyi ma def deux millions ñëw joxe ko àddiya loolu lépp ñu def ko sëñ bi ngir seen maam ñu def ko ngir seen maam kon ngeen ñaanal leen li neex nag ci bis bi te wone ne ma yëg ni Serigne Touba nangu na ko yëg ni Cheikh nangu na Cheikh Balla mii ndax sëriñ fàllu mii way juróom daal liggéey lu bari ci mbiri Cheikh Ibra Fall Cheikh li muy garaaw garaaw garaaw garaaw sëriñ fàllu dong la dem fekk ko mu toog mu ne ko fàtte sa bàyyi wàcc liggéey lu yàgg bàyyi fi sëriñ fàllu sëriñ fàllu tabax jumaay Tuubaa ji ba mu pare mu war koo ubbi xool sooroor ba ne naa fa def lampe boo xam ne ku dugg tuubaa di ko seen muy leeral ñëpp mu ne sama baay Ibra Fall dee ma ne woon bu ko fàtte kon naa fa def làmp bi tuddee ko Ibra Fall lampe Fall la làmp ba tudd muy Babal Mouridina ma déggeen démb ba may sa bige kumba dafa munta tagaate nag mais waaw loolu Serigne Fallou moo ko def ñuy def bisub maam Cheikh ah ki mujj ci néegam ñëw fi te ku mujj ci néeg yaay jël lépp kon ñun tey suñu xel war na dal nga fekk fi nag sëñ bi say doom ndax sonu maam Fatou nga nee toog moom sëñ Fallou moom sëñ son di sa doom ci sëriñ Touba di sa doom it ci sëñ Fallou xaw ma sëb sët ndax Maawo Ñang mi ko jur sëñ Modou Mamour Ñang a ko jur sëñ Madou Mamour ñan sëñ Afe Ñang sëñ Afe sëñ Fallou ñoo bokk soxna Awa Bousso sa beneen doom a ngi toog ci wetam. muy maa awa mbàkke bum sëñ abibu mu sëriñ fàllu ñiy sàkku nag nga ñaanal ñu ndax liggéeyub sëriñ Touba bi bu ñu ci taxaw bu ñu ci dëpp bu ñu ci jàdd te bu ñu ci gestu bu ñu ci tàyyeelit te buñ ci gis suñu boppit te luñ ci defit ñu xeeb ko nga ñaanal ñu ba liñ ci bëgg ñu am ci lu kawe suñu njort bu ngeen ñu ko bëggalee ñu am ko xam naa ni mën nga ko defal ñu ko Mbàkke pàkk bii nga toog kër la woon bu rëy yàlla indi ko ci suñuy loxo ñu daaneel kër gi raser ko ba mu mel ni ñu fas yéene fee tabax juma ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba nga xam ne dinañ fi julli di fi jàng xasida di fi naan café Touba di fi saam faal di fi wax waxi sëriñ Touba loolu nag sëñ Fallou mu sëñ Soye bu ñëw na fi toog na fi ñaan na fi sëñ Fallou mu sëñ Abdou Khadir ki démb la fi jógee. yow ñëw nga fi man sama xel dal na ndax sëriñ bu ak sëñ Abdou Khadr ak sëriñ Fallou dañuy benn sëñ Fallou de bim fi joge jógee sëñ bu la denkon bopam mu taxaw ko ba jébal ko borom mo tax mané dañuy benn sëñ Abdou Khadr moom moy sëñ Fallou soxna Awa Bousso ak soxna Aminta Bousso dong nak, ah moom it ba mu fiy jógee boko taxaw dañ Fallou moom mooy Sénégal kon maa ngi yemale fii wax ji di gërëm bu baax euh, monsieur le maire Ablaye Diouf Sarr parce que yónnee na fi euh, adjoint am directeur de cabinet ak ay collaborateur am yoo xam ne bu ci yónnee woon kenn dong day doy waaye démb njëkk na leen yónnee ca kër ga muy délégation bu ëppati li ba pare yónnee fa teraangam ngir yàlla ak jëmbi sëriñ Touba ak mbokk gi ñu yàlla boole kon yàlla na ko yàlla fay te yàlla dimbali ko ba li mu bëgg moo xam yaa defal ko ci lu kawe njortam ñi ngi sant bu baax monsieur le préfet ci teewaay bi di wax nga jot leen monsieur cant président de la république ndax dafa def lu ne ci cant gi moom am na weer woo na ma ma ñëw mu def teraanga bu rëy na ma defal ma ko ci cant gi mataatul une semaine ma ñëw mu ne ma ba cant gi mi ngi aw yoon démb démb démb heure bii maa ngi toog ak premier ministre ci bureau mu ne président moo ma woo ne ma nekku fi mais dafa bëggoon ma laaj la ndax li mu waxoon yépp def nañ te lii ab tàmbali la rek mais malgré ça nga xam ne soxlawuñ ci woon sax état bi ñu ñëw ci ndax lii dañuy jël ñii nga xam ne dañ leen bëgg a seen dimbal rek wane ci mbiri chef Rafal ba ngoon waaye malgré ça ñëw nañu toog indi fi seen sécurité def fi lépp nit nag bu la defee dara ngir yàlla ak jëmmi sëñ tubaa bu sëmi bu sëñ tubaa toogee da ko koy wax ginnaaw lool nag taalibe yi ñun bokk taalibe yi bu ngoonee parce que xam naa sénégalais ñoom fi mu ne marché ba lañ tal ku nekk nag da koy bàyyi ca lam bëgg ak ca lam ne waaye buñ seetaanee match ñoom ba pare taalibe yéen ñëpp maa ngi leen di ñaan ngeen teel a ñëw fii ñu sikar tak suñu ay ndig man may doon pé tak sama ndig sor yere bay fal waw waw comme niñ ko defoon daw di jaayu di daw di ñew di tepp di wacc di tedd di jog di bërëngu di tak di fahasu ngir yalla ak jëmmi Cheikh Ibra Fall ak Serigne Touba waw ñi neex ba toy ñi mënta way joy ñi mënta jooy yulli seeni poos ñi mënta jaayu jaayu nu ko Ibra Fall daan defee nañ ko defee noonu ngoon fii riir ñu xam ne tey la bisub si Ibra Fall maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak tawféex ak mucc ak xéewal ak yokk fii ak fa ñu jëm barkeb Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba suñu Cheikh Awa Balla yàlla nañ fi yàgg lool te wér Mbàkke dañu ànd ak yow liggéeyal Serigne Touba ba àjjana rek barke Serigne Fallou sa baay جاورت بالفرقان ربي المهين ملاذنا زيارة tubarkàlla euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di la xamal ne bis bi euh, day cant maanaam sant suñu borom ci lim ñu boole ak Serigne Touba julli ci yonent bi ndax li mu war bépp jullit waaye nag sant sëriñ Touba ngir lim ñu defal lim ñu defal jarul ñu ciy dellu si ndax ku ne gis na ko cant sëriñ Touba nag ñun niñ koy defee mooy dañuy jàngi alxuraan di jàngi xasida di bernde tey sant. Euh, muy ñetti fan yoo xam ne tey la tàmbali jëm gaaw ñu koy def nag di ko tàmbalee nag ki nga xam ne moom lañ ne mooy buntu sëriñ Touba en tout mooy buntu yoonu murit muy Cheikh Ibra Fall Lam Fall Babul Mouridine ndax ku ne xam na cër bi mu am ci Serigne Touba ak ndimbal gi mu dimbali cépp ku di taalibi Serigne Touba baa nga bokk ci moom ndax Cheikh Ibra moo wone nan la ñuy liggéeyal Serigne Touba ku bokk ci Serigne Touba bañ ba diñ la liggéeyal it Cheikh Ibra moo wone niñ lay liggéeyal kon pour man ñëpp ñoo ko ameel njukkal jukkal googu nag ñu di ko def bëgg koo defaraleel ñëpp euh, nit nag bu dee ku tedd di ku màgg nga tudde ko mbir bis ba war nga wone tuuti ca la mu jagoo woon ak la mu jikkoo woon ba tax nga koy màggal euh, bokk na ci liñ xam ci Cheikh Ibra mooy jàngale mu rëy mu jàngale te jàngale moomu la ma ca gën a jàpp mooy jàngal nit li ñuy wax ak oyof jàngal nit ki tamit li ñuy wax dimbali koo tane ndax moom comme ni ma koy waxee bokkoon na ci njaboot bu mag famille bu rëy ci cosaan di buur bokk ca Kajoor euh, yàlla mayoon koy teraanga may ko it ñu njort ko lool mooy baatin boo xam ne romb na sax mbir yu wàlliw may ko it alal may ko juddu may ko lépp loo xam ne rek dinañ ko nawee nit ku baax waaye li muy am lool lool lool li muy kéemaane kéemaane da ko fa bàyyi woon di xëy yor këlloom di wër di yalwaan Yalwan gogou nak ma japp ni da ko def rek ngir jangale ak oyof ndax ku toll non di Yalwan, te lot taxul ngay yalwan kon ak oyof te la waye di jangale it ko tane nga dimbali ko ndax lu masaan dajale yit da koy joxe lol bok nak ci li tax tay bis bi nga xamne mom lañ ko tuddé ñu xeyé lolou tan ñenn ci ay doom aadama yi nga xamne japp nañ ni seen loxo jotul seen ginaaw te ñoom ci seen bop ñu nangu ko ñew sakul ko seen bop ba ñaar téeméeri nit yu mat juroom ñaar fuk ren ñu tàmbali woon ci fukki nit ngir ku ci nekk ñu jëflanteeg yow ay xeeti ndimbal yoo xam ne dañ koy def ngir yàlla ak jëmi Cheikh Ibra Fall moomu ñuy fàttaliku ngir ku ko gis xam ne Cheikh Ibra Fall kat bokk na ci liggéeyam lii ku ko gis it boo ko ci mënee roy nga roy ko boo ko ci munta roy nga ñaanal ko te yàlla sàkku defal la ni moom ba nga defal ko euh, mooy suba gi mooy ubbi teg cant gi ngoon gi nag dañ fiy dajawaat def fi lam daan def maanaam ginnaaw oyof gi ak joxe gi da cee boole woon nag di dundee turu yàlla foo ko fekk mi ngi naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah ba fi mu ne nii sax damay faral di ko wax di tooñ naan ku wax laa ilaha illallah te tegoo ci faal sax day mel ne neexul kon kooku baatu kun fa yakkoon boobu daf ko daan dundee ba dënn yi di riir ba yaram yi di tàng ñu bëgg nag bu ngoonee ñu ñëwaat fii yëngal fi baatu kun fa yakkoon boobu def la mu daan def tëgg xiin yi sikkar sikkaru baay faal yi ànd kook njabootu Cheikh Fall gi nga xam ne ñëw nañ dèjà ci dëkk bi sëñ Cheikh Jëmm Fall yabal leen fi ba suñu dënn yi riir ba suñu yaram tàng ngir yaakaar ni Cheikh Fall dina jóg dinañu gis dinañu xool te dinañu jël jébbalaat ñu Serigne Touba ndax ngërëmam wàcc ci ñun loolu daal mooy bisub tey bi nga xam ne euh, maa ngi ciy sant bu baax nag ci ndorteelu cant gi ma ànd koog samay mbokk ñoo ma wër nii jaraaf yaa ngi nii jaraaf mbay ngiraa ngi nii jaraaf aala ngi nii jaraaf yu sundooy mi ñëw jaraaf Baye Saliou sàmb ñoom ñëpp muy Ngor Wakaam Yoff jaraaf seen liggéey ñoom ñëpp ñu ngi seen kër fan yëpp maa ngi ñoom a nekk ci yëf yi ñu yabal ñi ñu teewal leen fi ah sama mbokk si bu seeni laay mu ngi nii ñu bokk bàyyi bokk lépp di ay mbokk mu toogal fi Baye laay Thiaw sama xarit sama wëllëre di sama lépp di sama wéeruwaay daal moom damay wéeru ci moom ci lu ne muy sëriñ Abib Sakho nga xam ne lu ma ne bu neexee moo ko ne bokk na ca ña neexal sap bu bu saf bu fekkee mu saf moo koy sàppali bu fekkee mu neex moo koy gën a neexal bu mittee it moo koy defar ba mu sedd lu ma ne mi ngi ci mu nekk ni nekk sama wet ànd ak njabootam ak mbokku taalibe yi ak yéen ñii waa presse bi nga xam boobaak te yéen a ngi ci taxaw ak magi taalibe yi nga xam ne ay bàyyi lañu waaye dañ ñëw jaayanteeg man ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa loolu daal kon mooy bis bi nga xam ne nii mu mel nii tax nañu jàpp ni neex na lool rawatina nag biñ demee ba ca digg ba ki nga xam ne deretu Serigne Touba la muy Cheikh Serigne Cheikh Awa Balla moom Serigne Fallou moom Xaadim Rasoul ne fi jamet ci bisub Cheikh Ibra Fall te ku ne xam na Serigne Touba Serigne fallu ak Cheikh Ibra Fall ni mu demee woon ndax Cheikh Serigne Fallou bàyyi ko daan wooyee comme defaree jumaa ji def fab lamp tuddee ko lamp Fall jur doom tifli tudd ni Cheikh Ibra muy Cheikh Ibra Serigne Fallou kooku bu ñu defee bisub Cheikh Ibra Fall fii Serigne Fallou ne ci jamet jaare ko ci doomam ju tedd ji day mel ni Serigne Touba wuy si nañu day mel ni bis la. en français donc euh, on s'est retrouvé ici encore pour la treizième fois euh, donc c'est la 13e édition pour entamer euh, le chant annuel que nous organisons euh, pour rendre grâce à Dieu prier sur le prophète Mohammed et exprimer toute notre reconnaissance à Serigne Touba hadim rasoul Cheikh Amadou Bamba pour ce qu'il a fait en nous ce qu'il a fait en nous c'est simple il nous a élevés a un rang de dimension spirituelle que tout le monde a vu et de façon expressive. Et maintenant, ces journées durent trois jours. C'est aujourd'hui, demain, après-demain, samedi, la clôture. Donc on les entame par celui qui a entamé ou celui qu'on considère comme la porte du mouridisme, c'est Cheikh Ibrafal Hadim Rasoul. Euh, Cheikh euh, de Hadim Rasoul, bien sûr. Pourquoi Parce que Cheikh Ibrah euh, c'est lui qui nous a montré la voie par laquelle on doit passer euh, pour vénérer Serigne Touba, c'est lui qui nous a appris comment vénérer Serigne Touba, c'est lui qui nous a appris comment agir pour obtenir la grâce de Serigne Touba. Et cet apprentissage a été excellent parce que quiconque qui l'aura essayé l'aurait vu. Et pour moi, Chevrefal, il mérite qu'on lui rende grâce. Pour moi, si on rend grâce à Chevrefal, on le rend à Serigne Touba. Maintenant, quand on rend grâce à quelqu'un au point de faire de lui le parrain ou ou en tout cas euh, la personne, euh, la personne euh, principale de la journée, je crois qu'il est important en fait de, rappeler quelques-unes de ces actions qui font que tout le monde vénère cette personne. Et parmi ces actions de Chevrefal, nous pouvons citer le fait qu'il demandait l'aumône et le fait qu'il donnait tout ce qu'il avait. Pourtant, il demandait l'aumône malgré qu'il fût une personne très riche malgré qu'il soit, qu'il fût une personne descendant d'une famille royale de Cayor. Il devait être un damel. Il était très riche, il avait une dimension spirituelle très grande et très élevée. Donc il ne demandait pas le monde parce que c'était un démuni, il ne demandait pas le monde parce que c'était un pauvre, parce que ces qualités-là, si ça se retrouve c'est quelqu'un, on ne peut pas le considérer comme quelqu'un de fatigué ou de pauvre ou de démuni. Alors je me suis posé la question pourquoi il le faisait. Pour moi, c'est mon point de vue, il le faisait parce qu'il voulait enseigner. Il voulait enseigner aux gens l'humilité. Il voulait aussi enseigner aux gens la solidarité envers celui euh, qui, est plus démuni que toi. Et bon, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite action de solidarité en la mémoire de Chebrefal, grâce à Chebrefal, envers certaines personnes qui sont extrêmement démunies. On avait commencé par 10 personnes, aujourd'hui